jamono ji nga xam ne daanaka benn waxtu jot na ci bëccëg gi ci la ñu door cérémonie officielle bi ministre de l'intérieur maître Sidiki Kaba moo ko jiite ci ndorteelu kàddoom nag mu rafetlu taxawaay bu am solo bi nga xamee ni nag soxna Jaara Buso amoon na ko nekk royuwaay ci ndaw ñi bi mu ci noppee nag fësal na message u njiitu réew mi président Macky Sall jigéen ju sell jooji te teel soxna Jaaratullaahi ñëpp xam na li mu liggéey ci lislaam ne jigéen ju baax joo jile li mu def ci diine ne li mu def ci askan wi ne soxna jaara sa maam ju tedd jëkkat sañ fallu jàngale la doon def ne wëlulu lislaam moom daal la soxna jaara tasaare ci société bi ba ñëpp jëkk ne maam ministre de l'intérieur ne soxna maam jaara royukaay la ne maam jaara exemple la sëriñ fàllu Mbacké basiru ci turu xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké rafetlu na taxawaay bi nga xamee ni nag comité d'organisation bi amal nañu ko waaye tamit sant gërëm service état yi nga xam ne ñoom ñoo leen doon gunge. mi ngi leen di dalal bu baax te di leen yaatal bu baax te di leen jàmmante yéen bu baax a baax te nag ak cantam mu tàmbalee ci yéen jëm ci ka yónni nee seenu taxawaay ci dëkk bi rafet na lool. ministre de l'intérieur maître Sidiki Kaba euh, jote na nag ci ñaanu xalif général des Mourides ngir Sénégal gu dal